dama góor a sok ci oto bii la yéeg moom Fils de Balla ma nga noonu yaa ngi gis ay xaritam yaa ngi gis ay mbokkam yaa ngi gis ay njagañaaleem kenn mënul téer seen bopp saa ndax oto bi li ñu ko bëgg a chargé attanu ko ndax xalaat leen ni bis day ñëw oto bi war a dem ndànk Fils de Balla ngi noonu ndeysaan ma nga noonu mooy seen ndeysaan ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu moom Fils de Balla ma nga rango benn rabal ndeysaan gis nga ot ñooy oto bi gaayam yaa ngi noonu ñii ñooy préparateur mystique yi ñu ngi koy waajal mooy ma liggéey rek sawaay man xam naa li may def eh gaynde maa lay siyaar ndeysaan gis nga gaay Fils de Balla ngeen am waaw loolu waaw noonu seen doom a ngay dem ma ngay bëre ji làmb xare la gis gisuma Ousseyn bi nekk kër góor a soog tey waaye jam production organisé bis boo xamante ni <laughs> ay waaye jam waaye ndeysaan ñaari xale ñaari ndaanaan ñoo cay bëre góor a soog fils de Balla géej waaye ngi nii mbokk yi ndeysaan ñu ngi nii doole seeni doom ndeysaan géejawaay ngi nii ndeysaan convoi baa ngi noonu xolal mbooloo mi génn gunge Fils de Balla Ibrahima xolal mbooloo mi topp xale bi Ibrahima xolal géejawaay ñi génn ak convoi bi jiitu sànq bi jiitu xale yi ndeysaan loolu loolu yëpp làmb la ndeysaan oto bi ndeysaan mu ngi noonu Fils de Balla ngi noonu saan gars yi ndeysaan faw ngeen comprendre bañ a yëg ci oto bi ñëpp mënu ñoo yëg ci oto bi ndeysaan chauffeur baa nga noonu ndeysaan dégg nga gars yi ndeysaan da ngay wax ndeysaan gars yaa ngi noonu ndeysaan combat bi dañoo nar a dox ba stade lépp ngir dooleel Fils de Balla ndaysaan diggante géejawaay ak arène nationale wut gaa yaa ngi noonu ndaysaan ku nekk ak sa problème waaye lañ siyaar sóora ndaysaan booy baa ngi noonu ndaysaan Fils de Balla ndaysaan xoolal yan wu diis kii rakkam ndaysaan gis nga ko tey talu dara ndax magamay bëree sa mag buy bëre da nga ciy def loo mën ndaysaan bu kaf jotee ñu kaf bu foo jotee ñu foo waaye bu làmb ñëwee ñu ànd waajal ko ba mu pare loo mën a xam mooy mbokk yi géejawaay daal yëngu na ndax Fils de Balla ay bëre ñu ngi noonu xale yëpp ngi ànd ak moom te Fils de Ibrahima fu mu jaar ñëpp génn yuuxoo ndaysaan fu mu jaar gaa yëpp génn yuuxoo gis nga ko ndaysaan xale yi dañu koy topp ba biir stade xale yi dañu koy topp di daw lii nag dafa am solo ci mbër boo gisee lii da lay gën a ñaaxaat day gën a xam ni xale yi topp sama ginnaaw kat bëgg nañ ma waaye bis bi am na lum leen jaral ginnaaw ñoom ñiy xale ñoom la bis bi ndaysaan ay waay jamay keewaay ay waay jamay keewaay da ko doon yoor waay yëpp nga de làmb yi nga tëgg ndaysaan ña nga noonu ndaysaan gaayaa nga noonu ana ñi doon wax daal làmb su xale yi di bëree génn leen rawale seeni bagage sax xam ne xale yëpp ay jëlkat la déedéet xale yi ngi nuy topp ginnaaw Fils de di dem ànd moom gunge ko ànd ak moom gàttandu ko ànd moom jàppale ko ci bis bi xale yi ñooy xale yi géej waaye ñu ngi nii xale yi fune ne la ñu jóge ndaysaan fu ne la ñu jóge xoolal moto yi fa ñu koy xaar <laughs> xoolal moto bi fa ñuy xaar Fils de Balla nga jëm arène nationale ndeysaan oto ba mu yor yéeg bi dafa metti ndax xale yi loo wax duñ ko dégg waaye oto bi li mu yab dafa diis Ndaysaan na wàññi rek

ci oto bii la Fils de la nekk oto be de bu bu ñuuloon weex na tàll ndax xorom wis nañ ko lu ne sotti nañ ko lu ne sang nañ ko lu ne nga ni ah day lan dañ koy braqué dañ koy damm dina yomb tegoo ma de lu jën dañ koy diis nee na day xeex de Fils de sama rakk la man maay Papa si junior bu nekkoon écurie Fass te sama rakk laa indi tey góor soog mënu wax bu du tëdd si suuf ren di la. mais sa turandoo koy indi. sama turandoo koy indi. ba dinaa xam ne xale mag bokkul. ndeysaan xale ak mag bokkul. fii sa baalaa ngi noonu ndeysaan. ndeysaan. 3-0. laay laay la la. géej waay yëngu na waay. ndeysaan. gaa yaa noonu. Fils de Balla Gora Sock benn muy 3-0. 3-0 Fils de Balla kese. sama gars yi du est-ce que du oto bi ngeen taal clim bi rek di wax. Fils de Balla kese. Fils ko wax bu yàggee si Fils de Balla la. bilaay wallaay wa talaay. Fils de Balla kese ñun ñooy bëre ñooy daan ñooy xeex barki Serigne Touba. loolu sax nee da koy da koy dóor duma ko ndax Fils de Balla lu ne la ka wax. barki Serigne Touba Mbacke mënuñoo corriger. dafa tudd si ñun ñun Balla Gaye de la ñuy kontaakal loolu jaaxaluñ ci moom non non non non na ci. nga ne yow na corrigé. doomam doomam. aw Balla kay bu nee fils de Balla doomam la. fils de Balla kii de Balla la ay lii la. xeex wala bëre lu ngeen xeex duma daan dem ñibbi daan dem ñibbi. xaa gisoo lii xaa gisoo lii daan dem ah. du yàgg gars yaa ngay wax. na. ndeysaan déggal waa Fils de Balla yi ña nga noonu topp ko nga ni yaroo fi màggee fi doomu dëkk bi la fii la juddoo nga ni ndeysaan ña nga noonu di demaat jeexal laa ko daan def Democracia!

Ibrahima mu ngi noonu ci oto bi moom Fils de Balla Ibrahima jege ko Ibrahima jege ko Eh, kooku muy waxal rakkam la yan bu diis moom lay waxal. ndeysaan dégg nga ko ma nga noonu di wax. Ibrahima Fils de Balla dugg si na. ngeen baal ma dama doon daw ma Ibrahima ba bëgg a dee ndam rek incha allah rabbi barki Kamalu Bamba waaw ah. rek Fils de Balla ne Gora nee na ko tey lu mu def daanu bu ñëwee xeex mu duma ko su mu daanu ndax booy bi yarul te da koy yar tey Gora lépp na jël moo ñu dàq bëre moo ñu dàq xeex mooy ñu def lépp mais tey incha allah rabbi dina xam ne ñu dañoo nekk si yoon du moom moo ñuy téye daal lan moo bi siwo ay bagage la rek ñaari saak loo xam nga rek dañ maa yabal rek moo dañ maa yabal rek waaw Ah. ndam rek incha allah rabbi ndam rek yàlla nañu la yàlla lafal cat rek. ci barki borom Touba. ay ca jaajëf Ibrahima. sonn nga de. sonn naa trop bis bi ko jar. a nelaw. kenn xamul kañ la yàgg na. nelaw ma nelaw. wallaahi. ana Fils de Balla noo ko gisee ak moral bi. mu ngi ne le bis bu rafet rek lay ah. daa yab Fils de Balla. Takkusaanu Iba Mar. wala Takkusaanu Arène musul yab Fils de miin na Takkusaan. bis bu nekk bis bu mag bu ne bëri na ko. mais dafay bëri mbër boo xamante ni góor Sock nee na Fils de Balla wax bu nekk wax na ko booy bi amul yar arène nationale ci digg géew bi lay yaree Fils de Balla. waaw loolu ba la dëgg la rek entre mbër ak mbër la rek mais soo bëggee dëgg-dëgg jiili jiili bisub tay jii laay bisub tay jii Gora Sock am na combat. am na wallaay am na làmb ay xale yu ndaw lay bëreel làmb dañoo jaral. sama ah, waa ji la. lii yéen a ma ko dénk soow laal la soow mi soow laal. non yéen a ma ko yan ma. ci ma naan. Ah, naa nekk indil kaas ma xëy la naan. Ah. waaw. Ah, soow mu mbër di sottee ko est-ce que wóor naa def ci biir. dara nekku ci soo bëggee ma tijji naan sax dara nekku ci soow bi dara nekku ci amul saafara amul dara. waaw. am na solo. Ndeysaan sama gaa yaa ngi noonu. préparation bi gaa yaa ngi waxtaan say sama waa ji moom de bët ba cur xaw ma da jooy xaw ma lu mu nar waaye ndeysaan mbokk ndey koy jur ndeysaan xaritama ngay wàcc ndeysaan jooy na ndeysaan oh ay waay làmb mën lu ne làmb mën lu ne làmb mën ngaa ànd ak sa nit def lu ne wala boog gaayen ndeysaan waaye gis def nii waaye barki Seydina Muhammad xol ma tooy na ndeysaan ndeysaan ni nga xale tooy deret foor <laughs> lamba ngi nii ndeysaan am jooy na ndeysaan xol bi tooy na lii mooy bëgg dëgg dëgg dëgg mooy lii bëgg nit ba amoo ci moom sago ndeysaan ma ngay jooy nday saan xol ba tooy na kaay nii kaay Ibrahima fils de Balla ngi noonu di wàcc oto bi wàcc na ma ngay dox ndànk ndeysaan saan xool kook rabal bi ndaysaan xool ko xànc yi xool ko ñax yi xoolal Fils de Balla la mu sex ci gémmiñ gi ndaysaan lamba ngi ndaysaan Fils de lii coow lii yàgg naa am ci làmb mooy coowul porte combat bu jot nga dégg coow lii kii mooy bëre kii mooy bëre kii mooy dugg kii mooy dugg waaw maa njëkk bëre rek laa déggatul ci làmb loolu yëpp dañ koo changé waaye ñu jox la heure nga faussé ndaysaan ñu ngi noonu ndeysaan Fils de Balla ngi noonu ndeysaan Fils de Balla ngi noonu kaay Ibrahima Ibrahima kaay Ibrahima kaay. paa yi. dégg. léegi léegi rek la de ëpp naa def. soo ko sim day dugal. soo ko demal. demal. demal compter yow kenn war naa yow bu dul làmb sax da ngaa war a dugg. <laughs> ndeysaan. ndeysaan Fils de Balla ngi noonu. ndeysaan. ndeysaan. mu ngay dugg. ndeysaan moom ma. Fils noonu di dugg. ndeysaan Ibrahima Fils de Balla ngi noonu. Ibrahima jegeel port bi rek ñu accompagner Fils de Balla ba ci biir géew bi Ibrahima jegeel porte bi ndaysa ndaysa ñu ngi noonu

Eh, waxul de ndeysaan waxul moo tax man la wax daa am ci ay moment la rek am na moment booy toll bu ñu la mbër mi waxal sax doo wax Fils de Balla tay talut wax ma nga concentré wu rek ñi mu àndal fi mu toll nii ñooy wax. man maa ngi njëkk a dugg. ndeysaan. mu ngi noonu. tey lamb mënul nekk ah mënul nekk. tekkiwu ma ko sax di leen wan ni seen mbégte rek mooy suñu bànneex Fils de Balla nii lañ ko toppee këram ànd ak moom romb fu ne romb géejawaay ay mbokkam yëpp génn gasandu ko ànd moom ñu dugg ak moom ba arène nationale xanaa suñu jaan wàcc na xanaa du ñun ñoo leen bëgg. xanaa du bëgg bu ngeen bëgg wasaare bu raw moo leen moo leen raw waaye mbokk yi bu di abonné di laal notification bi lépp lu wasaare lamb dugal ngeen teel cee wasaare lamb wasaare